وجهني جزاء ربي وجزاء خير الورى فيما كتبت الجزاء وجهني جزاء النبي وجهد في سفينة ما خاد لي بركة المدينة هديتي خبل لدى كناكري زاغ لخير جملة المناكري علمني خبل لدى كرم بسار الذي بارزني

Cheikh Abdou sama xarit la sama sama rakk la ñoo ñoo bokk tey ndey ñoo bokk ñoo bokk bàyyi mu nekk sama sama sëriñ euh, nekk sama xarit daal lu nekk euh, di ah, nekk seen diggante euh, moo tax tey lu mu xat-xat comme ni nga ko waxee. damay ñëw bokk moom euh, bés bi euh, fas yéene woon nañ toog bay guddi. mais beneen délégation bi ñoo ma dikkee ko dirigé ñëw bokk si si délégation bi ñoom fi mu ne ñu doogee comme d'habitude. seen bi moo daan di moo daan di invité donc ko ko sant bu baax a baax di ko ñaanal aussi yàlla di ko taal suñu boppam. am bëccëg ci recevoir. ndax euh, moo ko sëñ Cheikh naa dañoo nekkoon benn benn la ñu ñu dugg woon ñaar ne bu sëñ Cheikh naa mos boo xam ne jàppe bi day day ak cofeel mu wér ko ci ñun ak mboolem njaboot loolu moom boole ñu nag nit ku nit ku baax nekk te nit boo xam ne mën naa ne bu ngeen seetloo mu nekk ci pouvoir ak ñu wàccee amul kenn nitam boo xam ne bana ko loolu jikko ko ko ak nam doon doxale ak ñoom ak lam seexoon ak ñoom couleur googu nag boobu moom mi ngi sàmm boobu nag tey jii su ma waxoon ne damay tukki ci guddi dama naa ko bul ñëw waaye ma ko jéggi ndax dem jot naa ma dikku mun naa war mun naa am jot naa am mën leen dama dikk waaye ak guddal gi ne daa war a dem Italie ca ca lañ fay dem loolu nag xam naa nëbb gi mu ko nëbb sax moo di bëgg waaw bëgg a teew si rek loolu na kon daal ñu ngi lay sant di la di gërëm di la di la ñaanal yàlla nga xam ne daal pël moom wax nekk suuxat te dañ koy dañ koy sàmm la nitu nitu qualité la bu ma dugg ci yenn détails yi dama na wax ci bare bare bare bare li mu doon ak fi mu nekk itam bu li ma ko may sa kër soxna mooy sa wajur la soxna waay sa wajur la seen soxna mooy ñëw a si بالليل والنهار نين بوك ييب بوك طالب ييب ماغي لين نيو دي جوت سي نيو بي سيرن توبا سيرن منتخا مباكي njabootu sëñ Tuubaa yëpp ñun taalibe yëpp di nuyu soxna soxna Bayli Mbakke turu soxna Maymuna ak Cheikh Abdoulaye mi ñu ñu njaboot yépp yeesalaat bis bi nga xam ne moom euh, bis la boo xam ne bii euh, bu am solo la ci lislaam ndax ba nga xam ne Laylatul Qadr toll ci euh, lislaam waaye nag li ci gën li ci gën a yéeme rek moo di soxna si ba koy tàmbali dafa jógee Daarul naan defar yam defaroon dikk seet fekk Cheikh Maodo di bernde yu lool Cheikh Abdoulaye mi ngi wax léegi ne boo fekk ne suñu foto waaye mu fëgg ni ko mën soxna may mu daal di génn eh, booba sëñ bi da ko wax booba ne ko dana dana dana dem ba doon ay ay gëléem kon lépp kon xéwal gu ñëw na xanaa di ñaan rek suñu borom ba leen bàyyi ba eh, soxna si moom la mu doon liggéey seen tuwaa waajuram bu tedd wa sëriñam lépp mën na waaye ñu ñun ñu deseel rek ñu eh, jaar ci barkeem ba am ngërëmul Xadim Moustapha loolu rek lay ñaan di ñaan suñu borom mi nga xam ne dara tëwu ko nag ni ñu ko teewee ren ñu teewaat ko na gën a déwén eh, te ñun ñun ñëpp ñu yokk ba ko rek jërë ngeen jëpp